suivre ci Sénégal 7 TV Sénégal 7 point com tey nag ñu ngi am mbégte di dalal ki nga xam ne mooy suñu confrère euh, le journaliste Ya Moussa di taskatu xibaar nga xam ne moom mooy Seneweb te rek ñu bëggoon waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom mooy ñeel dossier Babacar Touré Ya Moussa ñu ngi lay nuyu bu euh, maa ngi lay fay di am mbégte di janoo ak yow rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay topp ci site bii di Sénégal 7 sur ce ñu ngi nuyu kilifa kër gi di sunu doyen ci métier bi ñu ngi koy bàyyi xel rawatina yow mii nga xamante ni ci sa ñàkk kiñaan jàpp ni eh, lag ñuy laaj war nañ la cee mën a indil xëy na ay tontu eh, yu kawe sak njort kon ñu ngi balwaat ak askan wi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel eh, di la teewlu rek bu ko defee defe naa laaj bu njëkk bi comme ni nga ko junjee jëm ci mbiru sunu naataango googu nga xamante ni moom mooy Babacar Touré Kewlu di taskatu xibaar waaye féete ci wàll wi nga xamante ni lu jafe la ndax néew na ci ñun ñi jamono ji ñi nga xamante ni dañ ciy spécialisé wu mu muy journalisme d'investigation parce que li mu laaj ci courage ak li mu laaj tamit ci bagage intellectuelle xëy na ni ko ñenn ñi foogee ak ni mu amee réellement demewul noonu moo tax li ëpp ci réew mi bu ngeen seetloo taskat xibaar yi ëpp jafe-jafe ak yoon moom mooy journaliste nga xam dañuy yëngu ci wàllu investigation ndax du guleet ci moom ki ci jiitu suñu beneen doyen moom muy euh, Pape Alé moom it di yëngu ci wàllu journalisme d'investigation Euh, Pape Ndiaye moom ma nga fa moom jamono yi tamit ak jafe-jafe yi mu am ak euh, li nga xamante ni moom mooy wàllu liggéey beeg yoon euh, tiisa dal sunu njaboot mooy njabootu presse bi rawatina ñun taskatu xibaar yi di ko di ko masaw d'abord te ñaan yàlla it guddi gu lëndëm gi mu nekk mu daal di bët set leer mu daal ci génn ak jàmm ak salaam. waaye nag bu ñu defee taxaw seetlu tamit ci li ko yoon di toppee lan moo xew sañ Matar dafa am ex policier gi ñuy tudd Frédéric Nappel Frédéric Nappel boo ko tuddee sa xel dem ci dossier Ousmane sonk njiital Pastef ak ki nga xamante ni moom mooy aji Sarr ci mbirum viol googu nga xamante ni mi ngi ci loxol justice ba tey noppee guñ ca am ci ay live yi nga xamante ni sunu naataango goog di Babacar Touré lu baaxoo na di ko def ci tolluwaay réew mi di dikk ci yenn sujet d'actualité yi euh, am kàddu yi mu yëkkati jëmale ci euh, ex policier boobu di Frédéric Nappel yëg nga ni Frédéric Nappel tamit dem porté ji plainte bi mu porté plainte nag defe naa du rek euh, Babacar Touré Kewlo moom lañ ci tudd ci mbiru plainte bi waaye Ousmane Sonko mi ma tudd sànq tamit am na lu ko Frédéric Nappel di ko reproché di ko topp mais bu dee kaawu bu précis bii di sunu naataango Babacar Touré Kewlo mi ngi ñuy interpellé defe naa ñetti chef d'inculpation maanaam lañ koy toppee euh, de dénonciation calomnieuse euh, diffamation euh, nga jeexale ko ak diffusion de fausses nouvelle alors ndax lii mu wax am na walla amul ndax retour de parquet bi nga xam ne am na ko ginnaaw bi mu delloo fële commissariat central ay avocat am di topp dossier bi am na loo xam ne wàllu justice la loolu ñoom la ak yoon te tamit dafa am loo xamante ni secret la ci seen biir ci wàllu dossier am na ci loo xam ne xëy na avocat yi ñu ciy gën a euh, jekk ngir wax ko tamit nit ku ne da ngay wax la nga xam ak la nga maîtriser ñun li nu mën a wax mooy d'abord li jiitu dafa am tiis wu dal sunu njaboot te du gulit à chaque fois muy am loolu nag dafa mat a def taxaw seetlu ñun njabootu presse bi ne qu'est-ce qui ndax sunu liggéey ni nu koy defee dañ ko tegewul fa mu war a tege ba nga xamante ni chaque fois dañuy am problème ak yoon wala tey justice gi fi nekk wala pouvoir gi fi nekk sunu taxawaay en tant que taskatu xibaar Matar daf leen a arrangé tout par rapport ak doxalin yi. lan la mën mais instabilité instabilité lay jur ci wàllu démocratie parce que secteur de l'information gis nga taxawaay wu mu am ci réew dem nga sax bañ naan la presse moom mooy quatrième pouvoir ginnaaw ñetti pouvoir yi euh, judiciaire législative ak exécutif. ñu indi ci euh, bii di wàllu information parce que droit à l'information boo ko jëlee ci aw askan euh, farata la ngir ñu jox askan wi xibaar ngir ñu xamal leen li ñu xamul ngir ñu xamal leen lu jëm ci seen tolluwaay ngir ñu xamal leen li nga xamante ni tey bu fekkee député dañ koy def ci assemblée ba muy contrôle de l'action du gouvernement mais journaliste bi moom il va au-delà mais contrôle de l'action publique contrôle maanaam de tout ce qui est lié maanaam tey ci li nga xamante moom mooy suuxat réew mi ak di ko jëmale kanam lan moo ci dox lan moo ci doxul ma jël exemple képp am na coow gi fi amoon ci wàllu centre des œuvres universitaires de Dakar muy COUD du temps de Cheikh Oumar Anne Pape Alé Niang ñu ngi koy nuyu de passage moom it muy yëngu ci wàllu journalisme d'investigation nii sunu naataango gi di Babacar Touré Kewlo bindoon maanaam dossier COUD bi boo fàttali ko moom it dañ ko toppee woon diffamation gi ndax li mu woon am na wala amul waaye dafa mel ni histoire dëggal na ko ci ñu gis ni mal gouvernance am na alal yi nga xamante ne dañ koy jox ñenn ñiy jiite réew mi souvent dafay indi problème de gestion alors exemple la woon ci diffamation nga xam ne bokk na ci chef d'inculpation yi Babacar Touré Kewlo ex policier Frédéric Napel mais c'est citoyen mu nekkoon takk der mu sentir ne kat waxal nañ ko wala joxe nañ xibaar woo xam ne am na lu mu laal ci moom lu lu lu ko neexul loolu comme tout citoyen am na droit dem ci yoon wax li ko nakari teg plainte am léegi nag yoon tamit dafay woo ñi nga xamante ni daf leen a tudd ci mbir mi jàpp ni ñooñu dana ko tooñ comme noppeegul mi ngi ci loxol yoon ñun ak rafet njott la ñuy mën a xam la ñuy mën a am ci biir dossier rawatina ci sunu naataango Babacar Touré Kewlu ku may dama koy faral di suivre. xam nga bëgg lu neex nit wala bëgg lu neex sama njaboot presse du tax ma toog fii jàkkaarloo caméra yi ne lépp lu mu def ànd naa ca déedéet te même bu amee tamit ñu àndul ca la muy def am na pot moo xamante ni ñun ñoo koy leeral le linge sale se en famille si toutefois dafa am ñu njort ni kat moom def na lu mu warut a def mais li ma bëgg wax foofu mooy laataa yoon di am dara lu muy reproché tey ñun mboolem taskatu xibaar yi. mais mën nañ ko régler laata muy àgg fu mu war a àgg. je la doon seen liggéey ak waa ak waa un exemple concret mooy sunu naataangoog di Pape Jogay Faye bu direct news gis ngeen une gi mu génnee fan yi bi Abdoulaye Daouda jàll wuutoo ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Seck ci conseil économique social environnemental mu indi mbiru waaso ak mbiru ethnie mu am grandeur def mea culpa am ginnaaw bi ko correct réprimandé. ginnaaw Synpics ak mboolem kuréel yi nga xamante ni mosu ñoo nelaw mosu ñoo ñàkk bañ a taxaw taskatu xibaar yi bu dee Synpics ci mboolem taskat xibaar yi nga xamante ni nag ñu ngi ci seen kuréel ràññee nañ leen te bokk nga ci ñoom te journaliste nga ñu reconnaître la CORED noonu mais léeg-léeg mu mel ni dañuy xaw a sentir tamit un peu de léthargie bu dee CORED ndax am na ñu jàpp ni ni ñu réglé kaawu Pape Diogé ba bàyyi ci xel ba teel a àddu jàpp ni li mu wax warul mais mboolem journaliste gi nga xamante ni tey yaa ngi ci réew mi ak organe goo munti nekk saa soo defee sorti wala nga génn mais kilifa yooyu noonu nañuy saytu bu ko defee tey ji ni Matar bu génnee di wax lu mu war te wax naam sax dina am lu njëkkee sa biir kër gi nga nekk ah Matar tey seetaan nañ sa waxtaan wi dégg nañ kàddu yi nga yëkkati mais xoolaat ko ndax lii méngoowul par exemple ak li nga xamante ni moom mooy code de la presse bi ak exercice suñu métier. exemple bi ma la ciy jox bu ma dikkaatee ci direct news bi xam nga yaa ngi ma fekk ma yor ci samay loxo code de la presse di ko nafar fi mu ne nii te mokkalu guma ko euh, euh, dafa am article 18 bu lay wax ni euh, le journaliste et le technicien des médias doit respecter la dignité humaine éviter toute allusion par le texte l'image et le son à l'appartenance ethnique à l'appartenance ethnique euh, ou nationale d'une personne à sa religion à son sexe ou à son orientation sexuelle, ainsi qu'à toute maladie ou handicap d'ordre physique ou mental qui aurait un caractère discriminatoire et ou stigmatisant. kon maanaam li nga xamante moom mooy appartenance technique bi moom la sunu naataango googu laal kon njuumte la waaye moom it mu am grandeur nangu ko parce que article dix huit bu code de la presse bi dafay condamner li nu mel léegi ku mel ni tey Babacar Touré Kewlu ndax li koy yoon di toppee ba ñu nar ci ciy indil jafe-jafe te ñu yàlla mu àgg ci kaso parce que dafa am kàddu goo xamante lu ci munti xewit war nañ ko mën a waxtaane nu situer les responsabilité journaliste bañ cee dem kaso ndax ëpp na ci réew taskat xibaar ti dem kaso ndax dafa am loo xam ne nag njiitum réew mi président de la république Macky Sall ginnaaw wàccuwaayam gi nga koy jox moo nu ko diggoon ne fekk mi ngi ci réew mi du maanaam teg loxo taskatu xibaar ci wàllu délit de presse tamit ki nga xam ne moom mooy euh, maire Clédor pour tëj rek waxtaan bi euh, démb def na wax euh, am na déclaration bu ñu def maanaam day maanaam lu ci li nga xam ne mooy dossier Sweet Beauté pour ñu daal ñu daal di tëj ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ginnaaw bëgg a Frédéric Napel porter plainte loolu la mooy doon xalaat. waaw loolu bu ko waxee man moo ma ciy gën a yey pour mu wax ngir xam-xamam ngir taxawaay bi nga xamante ne moom am na ko ci dossier bi bokk ci pool d'avocat yi nga xamante ne dañuy défendre Ousmane Sonko. Euh, xam nga tey danga maa jekku sax di ma bëgg wax sama xalaat ci tolluwaay réew mi Matar dangaa baax rek waaye waruma ndax ay ndaw lañ naam du ma ne yàgg nañ lool waaye nu ngi bëgg a am ay at tuuti ci millier bi waaye ba tey di nangoo jàng ak di bàyyi xel suñu yenn doyen ba tax na joxe xalaat dafa métti ndax loolu dafay subjectif ci ne rafet naa njort wala ñaaw naa njort noo est-ce que ce dossier là le droit est dit oui ou non est-ce que dossier bi noppi nañ ci ban phase lañ ci toll ñaar mën a am nu inculpé ko wala ñu mujj ko setal ne liñ lay toppee dara amu ci kon avocat bu bokk ci moom bu demee ba ñaaw njort ci bile dossier kon man mii taskatu xibaar war a sukkandiku ci ñoom seeni matière ngir mën ko traité kon est-ce que dama war a rafet njort est-ce que dama war a rafet njort gëmuma ko waaye jàpp naa ni euh, Ousmane am na ñu koy taxaw ci mbir mi te ñoom it tamit la leen war ci seen taxawaay xëy na danañ ko matal waaye nag du tax ñoom ñoo war a àtte le dernier mot revient au juge donc juge bi bu dégloo ñaari parti yëpp bu amee mboolem élément yi nga xamante ni moom moo jëm ci biir le dossier muy Sweet Beauté mu mën a joxe kàddoom gu mujj pour wax ni kat àtte gi ak dogal gi laa ci laa ci laa ci laa ci jël mataar waaw waaw nu ngi lay jaajëfal Matar di feddiliwaat sunu soutien ci mboolem taskatu xibaar yi nga xamante ni guddintoon ni nu ngi am jafe-jafe waaw ak méttit ak jafe-jafe yi nga xamante ni taskatu xibaar yi dañ koy faral di dund waaw tey ñu ne dañuy teg loxo ki nga xamante ni moom mooy Babacar Touré Kewoulo waaw yàggul dara am na sunuy naataango yi nga xamante ni am na lu luñ leen def am na yiñ leen teg waaw ndax ñooñu teg leen loolu noonu ndax ñoom i tamit yoon dafa dul jug ci seeni mbir walla journalisme wala journaliste ci réew dafay déranger pouvoir yi fi nekk ba tax na lu jug rek nu war ma ñu war ñoo mën a noppiloo warut a demee noonu ku ne nan la jox sa cër jox la sa wàccuwaay te tamit bu tëj te ñàkkit mu doon tëj yu nga xamante ni vraiment dafay jëm ci loo xamante ni képp ku ko gis daanu wax ni kat ah Matar mi kat du du du rek li mu doon tas ko taxawaar waaye ñun wóor nañu lii mu def ni defwul maintenant nag rafet nañ njort ci sunu naataangoo yooyu noonu yal na leen yàlla taxaw yal nañ génn ci lu ñu nekk ndax tey ñoom la suba mën na doon man wala yow kenn ñaanu ko yàlla waaye tamit am na loo xamante ni du lu ñuy wax fii sunu biir la suñuy doyen ñu ngi may dégg ñu ngi ñuy bàyyi ñun seeni njaboot la gis nga réew mi ñoom bu nu am ragal wala tiitaange yedduñu wala réorienté ñu bu nu jàppee ne danoo juum laataa muy àgg fu mu war a àgg waaye du nu bàyyi mbir yi ba ma këtt ni njoon rek ñu jàpp ni kat dañ ko war a régler ca bale tribunal fii kuréel gu fi nekk te nga am statut ñu reconnaître la am nga sa tribunal bopp bi nga xamante ni laataa mbir yi di tàbbi ca mbedd ba mun nañ ko fa waxtaanee daal ko fee lijjanti ngir mu bañ a àgg fu mu war a àgg ndax réew mi nag war na weesu fu ñuy tegee taskat xibaar loxo waaye tekkiwul ni nag parce man taskat xibaar la dama leen di bëgg soutenir wala bëgg lu leen neex tax na ma leen di défendre déedéet du mbirum défendre sunu njaboot moo am nakar am lu ko métti kon soutien daf ñuy war jëmale ko ci taskatu xibaar yi waaye bu loolu jàllee tamit ñu nit xëy na am na waxtaan woo xam ne suñu waxtaanu bopp la muy suñu biir ngir nu réorienté waat suñu bopp ci mbir mi ngir bu ëllëgee it xëy na yii jafe-jafe duñ ko mën a dund mataal waaw di la jaajëfal vraiment di jaajëfal mboolem internet di nga xamante ni ñu nuy suivre euh, di la wax euh, merci beaucoup encore une fois euh, asalaamaaleykum mbokk internetu Sénégal set maa ngi leen di nuyu di leen ziar Euh, dossier Babacar Touré nag euh, li ma ci mën a wax mooy euh, benn dossier la boo xamante ni benn sénégalais lambda moom moo daal di rek porter ki nga xamante ne moom moo di Babacar Touré nekk directeur de publication bu Kéwoulo ci droit wam nag la nekk ki nga xamante ne rek moom moo di Frédéric Frédéric Nappel ci droit wam la nekk il s'est senti diffamé donc dafa dem fi nga xamante ne fa la mbaxane doonee benn ngir ñu àtte ko ak ki nga xamante ne moom moo di Babacar Touré Babacar Touré nag euh, niñ ko xamee mooy euh, yor na site boo xamante ne franchement euh, day joxe information yu mucc ay te tamit le fait que mu dem fi mbaxana doonee génn du duñ guléet néguleet mais sant yàlla ndax da cee mës a génn idem bii nag li nga xamante ne rek moom la ñuy ñaan yoon mooy ñu juger ko ci li nga xamante ne moom moo di plainte bi ñu ko teg muy diffamation ñu jugé ko ci loolu ñu daal di ciy yem euh, te baña a rek euh, yóbbu euh, li nga xamante ne moom moo di justice bi jaarale ko rek fi nga xamante ne moom moo di combat yi nga xamante ne moom la Babacar Touré di combattre te jotewul ak lenn ak bi li nga xamante ne rek moom moo di plainte bi Frédéric Napel daal di introduire loolu kese nag la ñuy ñaan yoon te am nañ confiance en la justice sénégalaise Euh, te euh, di ñaanal rek ki nga xamante ne moom moo di suñu naataango Babacar Touré euh, yàlla génne ko ci tolof tolof yi mu génn ceeg jàmm daal di continuer rek liggéey bi nga xamante ne moom lay def ci Kéwoulo. monsieur nekkul moom kese la li li maanaam la la la yoon topp si wàllu journaliste parce que gisee kaaw Coro am na fi ak kaa nga xam ne day suuxal démocratie parce que ñu bëri ñu ngi wax ne dossier bi c'est un dossier politique. Euh, comme ni ma ko waxee rek euh, képp koo xamante ne tu t'es senti diffamé wala bépp sénégalais boo xamante ne euh, waxal nañ la loo xamante ne waruñ la ko waxal en tant que journaliste yow am nga droit dem fa ma xanaa doonee benn daal di porter plante foofu tamit la ñuy juger ñi nga xamante ne moom moo di journaliste bi wala ki nga xamante ne moom moo di reporter bi comme on le di rek nul n'est au-dessus de la loi képp koo xamante ne rek yow tu t'es senti diffamé am nga droit daal dee dem fa mbaxana doonee benn porter plainte mais lenn rek la ñuy comme ni ma ko waxee woon lenn euh, léegi rek lenn rek la ñuy ñaan justice bi mooy bu ñu xool ne journaliste la bu ñu xool ne day dafa am benn fait boo xam ne da koy combattre euh, bu ñu xool bu ñu ko jaarale ci euh, canaux politique yi nañ xool rek ne c'est une personne boo xamante ne dañ ko porter plainte ñu traité ko euh, justement euh, ñu traité euh, li nga xamante ne rek moom moo di dossier bi à sa juste valeur buñ bu fekkee diffamation la ñu traité ko en tant que dossier diffamation bu dee injure la ñu traité ko en tant que dossier boobu te bañ koo jaarale rek ci leneen loo xamante ne du justice. tamit jotul tey ñi nga xam ne ñoo boot journaliste yi muy ay correct wala simpix ñoom seen taxawaay ana lan la war a doon. ah euh, peut-être fi mu toll nii da nga koo gisul rek mais ñu ngi ci parce que euh, keroog ba nga xamante ne dem nañ division des investigations criminelles mooy bi ñu convoqué Babacar Touré Kewulo euh, gis nañ Bamba Kassé mu daal di teewal ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di journalistes yi gis nañ leen mais problème bi mooy ñoom je pense que à leur niveau mënuñu lu dul déglu li nga xamante ne moom moo di justice bi. voilà mënuñ lu dul déglu lu dul justice bi je pense que mënuñu cee def leneen parce que kaaw Pape Ndiaye bi tamit gis nañ ne euh, association yooyu yëpp jóg nañ taxaw temm ngir jàppale ko mais fi mu toll nii xam nga rek comme on le dit le temps de la justice ne n'est pas le temps de la politique ni le temps de la presse voilà maa ngi leen di jëfal bu baax di leen remercier. mais euh, du sax Babacar Touré rek euh, suñu confrère Pape Ndiaye jàpp nañ ko mu ngi ci kaso bi génnagul Euh, Pape Alé Niang jàppoon nañ ko fi mu doonoon loo xamante ne nii lu metti woon la ak ñeneen ak ñeneen journalistes yi euh, ñi nga xam ne jàpp nañ leen bëri na ak Coro aussi Coro Mandela ñi ngi ñi ngi leen di ñaanal euh, suñu borom jàppale leen ñu jóge fa lu gën a gaaw parce que journaliste place am du du kaso journaliste place am ci mu nekk ci côté askan wi la di leen jox xibaar yu leer te wóor xibaar yoo xamante ne nii ku ko jot rek di nga mën a am li nga xam ne nii mooy li doy ci wàllum xalaatin ci réew mi ak doxalin aussi tamit ci réew mi donc li ma gëm mooy que ne euh, fu mu nekk nii li fi am doy na yi tiit nañu man mi di wax ak yow sax damaa tiit ndax euh, li nga xam ne mooy moo gën a moo gën a am solo te du sax pour journaliste kese euh, liberté d'expression dafa bokk ci droit yi nga xam ne nii moom la droit de l'homme may nit waxuma rek journaliste de mais nit képp kuy nit am nga droit wax sa xalaat waxee ko ci no nga xam ne nii wax dëgg fa yàlla boo ko waxee ku ci nekk dina ci mën a gis boppam mais à plus forte raison journaliste yow ki lay ki lay jox information boo ko jàppee kooku fu mu lay joxeeti information fu mu lay te information. lan la mën a jur si réew bi nga xam ne ñu ngi bëri ñu wax wàllu démocratie am day sooxe. recul recul recul recul recul recul recul démocratique bu bu mag a mag a mag. dëkk yu mag yi bu ñu jàppee seen journaliste yi mais <laughs> dëkk bi du du ñu am jàmm ñëpp dañuy yëngu te loolu moo am fii Sénégal effectivement ñi ngi remarqué wax dëgg fa yàlla recul démocratique bu mag a mag a mag ci le fait que ñuy museler journalistes yi di leen tere ñuy wax seen xalaat gaa nag wax dëgg fa yàlla am na loo xamante ne nii euh, journalistes yi aussi tamit war nañ cee bàyyi xel parce que aussi tamit nit ñi bu ñu bu ñuy dem rek ci émotion journalistes war nañoo bàyyi xel que ne bu ñuy wax nañu xam bu baax li ñuy wax te mu méngoo ak li nga xam ne loolu la ñu jàngal ci wàllum étique ak déontologie buñ ko weesoo rek tant que ñi ngi ci étique ak déontologie di wax li nga xam ne information la man je pense que waruñoo inquiété wu dañoo war a nekk ci jàmm ak salaam et puis mën a exercer suñu métier euh, pleinement mais bu fekkee ne wax dëgg fa yàlla ku ci nekk euh, boo waree wax ñu jàpp la nee la ràpp ci kaso gi ci yoo xamante ne nii amul bopp amul geen parce que tamit ñu fi nekk journaliste ñu ngi wax lu gën a grave ah gis nañ fi ay politiciens yoo xamante ni toog nañu fii ne dañuy dugg ci kër jàmbur taal ko ñii ne dañuy dem fi mais te kenn waxu leen dara te kenn waxu leen dara léegi Sénégal ñaata Sénégal moo am léegi dafa am Sénégalu politiciens yoo xamante ne nii dañuy wax lu leen neex te leen def dara ak journalistes yi nga xam ne dañuy def seen liggéey di wax li nga xam ne nii moom moo soxal askan wi ñu leen di jàpp di leen tëj loolu wax dëgg fa yàlla ku mu yeewul ku war nga war ngaa tiit te ñëpp tiit. taxawaayu correct war doon ak bi nga xam man euh, je pense que CORED ak SYNPICS ñoom ñi ngi seen taxawaay rafet na parce que aussi tamit euh, bi ñu bi bi arrestation yi amee am na ku ci nekk génnee nga say communiqué nekk euh, wax joxe solidarité bi nga xam ne ni moo war ci journalistes yi nga xam ne jàpp nañ leen mais lépp rek dafa dafa dafa dafa jàll ci code de la loi bi nga xam ne ni dañ ko war a voter pour journalistes yi ci wàllum liberté d'expression code boobu bu jàllee rek dinañ am jàmm il faut ñu gën a insister Euh, je et je lance appel à à ci Synpics correct correct ak euh, bépp euh, syndicat boo xamante ne nii ci wàllum journalisme lay lay yëngu ñu gën a baral mbir mi ñu gën a baral mbir mi ndax journalistes yi mun a am mun a exercer seen seen seen seen seen seen seen métier le plus aisément possible sans contrainte et sans difficulté. ñu ngi leen teg loxo ñi bàyyi rek nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo leen seetaan Sénégal 7 point com. waaw ah, salaamaaleykum salaamaaleykum. Euh, ñu ngi am kontante ak mbég lool di war a waxtaan ak yéen ci wàllu euh, Babacar Touré ci nekk xewloo waaw Cissé bul ma waxtaan ci loolu dafay yomb parce que man miy wax ak yow euh, bokk naa mën naa wax ne bokk naa si ñi nga xam ne presse bi bu taxawee tey am nañ suñu loxol bu baax bu ñu si parce que maanaam lu toll xarnu genn wàllu xarnu def nañ ko ci maanaam lu tollook vingt ans def nañ ko ci presse donc presse bi presse sénégalaise dafa nekk loo xam ne Euh, presse bu dëgg presse bu taxaw taxaw ci yoon woo xam ne euh, ña ñu jiite woon ña ñu jiite woon mu nekk ñoom Baara Diouf euh, ñoom ñoom Moussa Sow ak ñoom Isaac Diop a tant de doyens ñoo ñu ko xàllal te jamono yooyu maanaam presse sénégalaise ni mu juddoo mooy presse militante. plus militante bu ñu koy wax ne mooy presse boo xam ne dafa nekkoon ci clandestinité depuis le PAI 1957 ci la presse bi juddoo. presse bi bu mu juddoo ñu nekk dans la clandestinité maanaam pour clandestinité mooy koo xam ne day bind di nëbbutu am ay ay organes yoo nga xam ne juddoo nañ ci ñu mel ne xare bi xare bi ànd jëf la ànd jëf ku ñuy wax Landing Savané mi foofu la nekkoon mën naa wax beneen bi mooy jaay jaay doole ak euh, presse bu ñuy wax presse mépaay boo xam ne Majmout Diop moo ko daan génne donc pour wane ne histoire euh, presse yàgg na Sénégal euh, yàggaay boo xam ne tax na nga xam ne yàggaay boo xam ne léegi lii mu jur mooy presse plurielle presse plurielle bi nag bi ñu ko waxee mu am tey am na ci ay ay at at yoo xam ne ay xeex la woon xeex yoo xam ne ba kenn dem na ci deret tuuru na ci yenn yi ci no compromis lañ ko amee yenn ci négociation lañ ko amee kenn masul may presse bi dara depuis bi ñuy amee suñu indépendance ba léegi presse bi lépp lu ñu am dañ ko dañ ko arraché maanaam ci tubaab li muy wax de haute lutte masuñu ñoom sexal tàngal presse bi Sénégal nu mu bindoo xam ne ak nu muy demee si démocratie boo ci jëlee presse bi dara dootu ci des boo ci jëlee presse sénégalaise dara dara dootu ci des maanaam liy leer bay leer ci askan wi ci ñun lañ koy xaar askan wi yaakaar gi nga am ci élection bu ñu demee ba dañ naan presse au niveau international ñun ñi ay journalistes dañuy génn fu nekk la ñuy dem mais on est cité en exemple France rawuñu dara États-Unis rawuñu dara ci wàllu tasum xabaar ba tax lépp li nga xam ne defoon nañ ko ba suñu mag ñi ba tey jii suñu jonnutiwaat lu tey état bii nag dafa taxaw ci nasaxal nu te loolu ñun buñ moom mënoon nañoo jaar ci bopp yëpp baa ñu tëj journaliste yëpp mais loolu mënuñu ko am parce que ñun buñ buñ jaaroon ba tëj ñu ñun ñëpp waxuma waxuma ay Babacar Touré ñeneen yoo xam ne ñu leen fukki junniy Babacar Touré ñoo fi nekk presse bi kenn mënuñu xoxotal kenn mënuñu tiital kenn mënuñu téye. parce que mën a jur si wàllu démocratie ak évolution. waaw li ma mën a jur rek ci ñoom lay tooye parce que euh, bu ñu demee ba nga xam ne taskatu xabaar boo nee Sénégal nga jóge ñu am nuñ la taxawee ñu am nuñ la taxawale ñu am nuñ la gërëmale ci Afrique Europe ak États-Unis kon donc régime bu fu mënti ñëw muy Masamba ak Mademba ñun ànd noog pouvoir ñun contre pouvoir lañ lii askan wi ñu sas mooy maanaam mm, sas pour lépp loo xam ne day maanaam day jëriñ réew mi ndox luy luy jëriñ réew mi lu yoo xam ne ci réew mi la nekk ñu leeral ko ba nga xam ne Euh, euh, euh, nantu da askan wi dana ko mën a jariñoo donc loolu kuñ ko mën a tere amul muy ma Samba ak ma Demba man jëmal ma ko fenn muy nga nekk opposition muy nga nekk pouvoir l'essentiel rek mooy ñu sommes le premier pilier e le dernier pilier de la démocratie fii si Sénégal laa wax de xaw ma weneen réew parce que li ñuy am lépp ci ci suñu loxo la ak suñuy tànk Sénégal mën naa wax ne parti politique yi ñu ngi jouer seen rôle mais presse bi kenn jiitu ñu si muy guddi muy lëndëm muy naaj muy tàng presse bi ñu ngi taxaw muy Sénégal boo demee ba Bunkiling fi Bunkiling ba Saraya presse bi ñoo fa taxaw parti politique taxaw fa. léegi la moo war a doon taxawaayu ñi nga xam ne moom ñu ñu jiite yenn kuréel yi mel ni COREX SYNPICS ak yow fi nga xam ne moom nga bokk muy fax ak lan ngeen jot a def si journaliste yi nga xam ne dañ leen jot a jàpp. waaw euh, loolu Cissé boo ma ko waxee dama ciy kontaan yow mi témoignage boobu mooy bu mooy laaj Euh, xam nga ci dara ñun fax fédération bi nga xam ne moo ëmb kuréel yoo nga xam ne wàllu taskatu xabaar lañ ak ñi nga xam ne techniciens yi liggéey ci wàllu euh, information ñun ñoo ko sos ñu ngi ko sos nag depuis euh, maa ngi magg wax ne mat nañ dix ans biñ ko sosee ba léegi nii lépp lu nga xam ne daal maanaam day jariñ day jariñ journaliste ci wàllu nekkinam ci wàllu liggéeyam ci wàllu avenir am ñun ci la ñuy taxaw Euh, beneen bi mooy lépp li nga xam ne tamit day gàllankoor journaliste ba muy nasaxal liggéey bi loolu moom ak fuñ ko ak ku mënti dal yow mi bi mu la dalee ñun fax comme que membre si fax ñun taxawuñu tooguñu liñ ci amoon yëpp def nañ ko dem nañ ba ci avocat ba taxawal avocat pour taxawal la beneen bi mooy lépp li ñu am ci kuréel yi nga xam ne xam nañ leen sur le plan international wax nañ leen ñi nga xam ne ci loola sur le plan national àndandoo ñoom xeex muy coordination des journalistes de Sénégal la euh, la la coordination des journalistes la CAP. donc ñun suñu loxo ci biir CAP ñeneen ñi xam nañ ko ñu ñu nekkal suñuy nawle xam nañ ñooy ñon ñun kenn du ñu gor kenn du ñu ger kenn du ñu jëndeek lenn parce que Sénégal la ñu am Sénégal rek la ñuy défendre te journaliste sénégalais nekk na journaliste comme ni ma ko waxoon sa njëlbeen royukaay la ci àdduna bi. waaw waaw ngay jël sa euh, sa doole di ko teg si journaliste sénégalais mooy da ngay tardel sa bopp li nga bëgg du am te Sénégal dina dina la fi bàyyi waaw parce que nous sommes en exemple en Afrique bu ñu jox dana leçon man miy wax ak yow damay dem ba Algérie ñu may invité pour ma leen wan fan la ñuy jaar ak nan la ñuy def pour taxawal seen presse. léegi pour tëj rek ah, question bi ma laaj mooy wàllu li nga xam ne moom mooy ah, liberté de la presse ba léegi si kaaw Babacar Touré ba léegi parce que ñu bëri ñu ngi jàpp ne maanaam fu daa am ah, la moom moo enjeu élection présidentielle yi nga xam ne mi mooy waay ñëw moo tax ñu daal di koy teg loxo waaw mm, waaw damay tëj euh, mbokk yi euh, ci wàllu woowu nga ma laaj euh, maanaam daal mbir mi boo koy xoolaatee xoxotal la xoxotal bu ñu tegul fenn Babacar mën naa bokk APR mën naa bokk PDS ñun suñu yoon newul ci loolu waaye nag journaliste la en tant que journaliste nag dañ ko war a respecté dañ ko war a jox gëddëm gëdd bi mooy gëddam du prison ni ñu ko defalee ci Pape Alé defaat ko ci def ko ci yow Matar Cissé moom la ñuy bëgg a def euh, ci Pape Pape njaay bu ñu jógee ci Pape njaay defaat loolu ay xoxatal la te xoxatal mënul dara ci kanamu journaliste. presse sénégalaise ku ko xam ak fi ñu jógee ak li ma wax ci histoire xam nga du presse par presse boo xam ne dañ koy fabriquer man mi wax ak yow j'ai fait dix ans de communication kenn mësuma ger ci lenn du kenn koo xam ne mën na ma woo ne ma lii maa la ko joxoon ba lii maa la donc ñun ay valeur la ñuy dox ku keneen ku gëmul valeur nag yow loo mënti indi day dem waaw nañu bàyyi suñu suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi leen di tëj commencé nañ ci jigéen ñi dóor nañ si jigéen ñi damm nañu def nañ lu nekk waaye ngir yàlla réew mi ñoo ko bokk te réew mi dafa soxla leneen lu dul ay xoxatal ak ay dóor Babacar nañ ko bàyyi Pape Pape Pape Ndiaye nañ ko bàyyi keneen tamit ku ñu yëgal ak ku ci ñu war nañu bàyyi seen pexe yooyu pexe bi ñu war mooy teg réew mi ci yoon réew mi ñëpp ko bokk réew mii ñëpp ko bokk Afrique ñun rek la ñuy seetaan bu ñu jéngee rek Afrique yëpp jéng donc waaw man maay directeur publication du journal L'Opinion waaw journal L'Opinion bon c'est un journal euh, d'analyse et d'investigation donc euh, vraiment ji crois que Seyni Diaw ñu bëri xam nañ ma ci wàllu wàllu woowu quoi maa ngi jéglu nag ci lépp lu nga xam ne vraiment mbokk yi may déglu ñu ngi ko am waxuma ko pour samba waxuma ko pour ma dem dama ko wax rek pour intérêt national ak intérêt euh, citoyen et que ce que nous avons obtenu aujourd'hui nous l'avons eu de haute lutte euh, euh, cimentée par le sang de forte forte négociation et de compromis kenn nag mënu ko génn kenn mënu ko foxatal du lu ñuy may du lu ñuy abal